préfet wax na ko léegi contextualisé na yi nga xamante ni yëpp war nañ ko bàyyi wale xel ci biir jëm ci nawet bi ñu nekk ñëw ci li muy àndal ci ay xat-xat jëm ci wàllu assenisement li muy àndal ci ay jàngoro feebar ak feebar yi wàlle li muy àndal sur le plan social euh, wàllu santé yaakaar naa ni nun ñëpp am nañu yëg-yëg ci ni gàmmu yi daan am amaana du bokke bu ren ndax li mu tombeel yëpp rawatina recrudescence su accident yi am sëriñ bi ci xalaatam bi mu ñëwee dafa wax ne na tànn thème boo xamante ni mooy tënk njaboot gi yëpp mu taamu tem bi mu jël tënk ko ci sunu yonent borom bis bi sayyiduna muhammad moo ko waxal boppam ni bu'istu li utammima makarimal axlaq dañu ma yónni ngir ma ñëw mottali les nobles ñëw mottali ko bëgg rek woowaat responsabilité wu ku nekk ku Sénégal responsabilité wu kilifa yi responsabilité wu njaboot yi responsabilité yi ñi nga xamante ni ñoom la ñu teg ñu war a doxal waaye responsabilité képp koo xamante ni yaa ngi bokk ci biir réew mi te nga xamante ni sag bokk ci biir du ñàkk nga war a génne yow lan ngay participer pour defar gi ñuy defar Sénégal defar gi ñuy defar réew mi defar gi ñuy defar ci côté yépp lu jëm ci réew mi mën a jàkk mën a tegu ci teguwaay bi ko kilifa yi santaane le comité d'organisation se satisfait du déroulement de cette réunion, les échanges qu'il y a eu, mais surtout cette conceptualisation que le préfet nous a faite tout à l'heure. Un maulit en hivernage. Euh, ce qui, le cortège qui le... Euh, euh, par rapport à tout ce qui concerne une organisation de cette nature qui se voit. Euh, euh sera rempli ce jour euh, de, des Sénégalais des contrées les plus éloignées, du, de l'extérieur, la sous-région, la diaspora. Tout le monde viendra célébrer le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, se ressourcer euh, aux sources euh, divine de Tiwawan et cette nature aimerait qu'on l'organise et qu'on lui donne un, aspect qui permettra de satisfaire tous les besoins qui viendront à Tiwawan. Et c'est ce que cela, les chefs de service ont fait. Tout le monde attend pour cette préparation, qu'Allah les, les, les aide à magnifier tout cela selon les directives que vous, vous avez données au, préfet de Tuaon, les directives du ministère de l'Intérieur, les directives de son Premier ministre, euh, euh, le président Ousmane Sonko, les directives du président de la République, euh, tout en souhaitant que tout ce qui devrait, devra être fait soit fait pour que Tuaon et la réussite des années précédentes. J'y veillerai personnellement. Inch'Allah, qu'Allah vous y aide. gouverneur kon ñu ngi lay feeñalal cantu Khalifa, bi cantu Njabot, gi jiital ko ca moom ci boppam ñaanal ko yàlla yàlla gën a dolli wéram waaye 122e édition. Le d'août de cette année est le 122e édition est placée sur les nobles vertus. Donc, euh, je pense que le le lañ doon dit rek nous ni ñu ngi faire cantu khalifa bi jëm ci kilifa yi nga président de la république wàcc si ba ci premier ministre am wàcc si ba ci le ministre de l'intérieur bi nga xamante ni moo jiite communauté yi ñaanal leen yàlla yàlla na leen yàlla dooleel te eh, may leen ñu doxal seeni mission ca gunge leen ak ndamam ba ñu yegg ca tabaarakallah sénégalais yëpp duggaale ci biir ñu ñaanal it sunu kilifa googu di xalifa bi yàlla na ko yàlla gën a dolli wér te may ko yen bi ko mag ñi yen ak li mu naal ci biir tabarakallahu sunu euh, projet boobu nga xamante ni projet wu Sénégal la muy wàccaayu ubbi euh, liggéeyu jumaay Seydi Hadj Malick bale nga xamante ni moo nekk ca Tiwaawan ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla may mu yëggale lépp ak sago moom ak i rakkam ak njaboot gi yëpp ak mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp rawatina nag ñi mu séqal ëttu diine ñoom ñëpp ñu ndokkeel leen ci li nu jëm ci wàccaay muy bisu yonent bi sëriñ Habib tabarakallahu ñu ngi rekk yamale sunu kàddu foofu may la nga yeggale li ci des pour wane ni daal eh, incha allah nun njaboot gi nu ngi àndandoo fas takku jàppalante ak kilifa yi ba li mu bëgg ci bis bi président bëgg ko premier ministre bëgg ko yàlla may nu nu yegg ci ak jàmm te may nu itam nu doxale ko te nu def ko ci yoon woo xamante ni du am benn tolof tolof buy indi jaaxle ci biir ñaanal yàlla réew mi yàlla na fi yàlla gën a dotti barke xéewal te may nu nu yeggale nawet bi yeggale ko ak sago ak bépp yiw sëriñ bi nu ngi baalu àq ci kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi dellu si waat di kàddu cant teg ko ci suñu kàddu rak di suñu soppe sëriñ Moustapha ànd kook suñu jaamu bopp bii di sëriñ Babacar Cissé ak président wu ak mboolem membre yi nga xam ne ànd nañu ak ñoom wuutu fiit sunu ñaari rak yoo xam ni fii la ñu daan toog ak ñun di ñu wéttali di sëriñ Habib si ibnu sëriñ Babacar si Mansour ngant dikk ñu yebal ko feneen fu mel ni fii ñu ñu yebal mu wutu ñu foofu ñu wutu ko fii ak sëriñ Cheikh Omar si Jamil bu Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha ñu ñëwaale fii teewal fii sunu bokki bopp yi nga xam ni amoon nañu occasion ci CDD ba ñu bokk ak ñoom te ñu bokk ci biir programme bi di waa jamaatu nuur ak sunni bi nga xam ni tey xalifa bi mi ngi ko teg ci loxo doomam soppeem di sunu soppe di Mouhamadul Makhtar Cissé ànd ko équipe bu am solo nga xam ni tey fii ñu toog ñoom ñëpp lañ fi toogal ñu àndandoo teewal fi xalifa bi Serigne Babacar Mansour ak rakkam yu tedd yooyu nga xam ni ñooy ndeyjooram di càmmoñam di Cheikh Hadj Malick Maodo ibnu Cheikh Hadj Abdou Serigne Babacar Abdoul Aziz ak seeni rak ak njaboot Seydi xaj Malick yëpp ñu ñëw fi rek di renouveler suñu kóolute ak suñu ngërëm ak suñu mbégte ci taxawaay boo xam ni masu leen deñ di ci taxaw bu Tiwaawoon soxlaa gouverneur ñi ngi lay sant yow ci sa jëmmi bopp ci teeru bi nga xam ni teeru nga ñu ak dalal bi nga xam ni dalal nga ñu ko ak coordination bi nga ni nga ko ci depuis le départ ba léegi ñu lay ñaanal bi mission bi yàlla yàlla gën la di la del suñu cant ci sa préfet di suñu préfet bu baax bu département de Tivaouane di ko ñaanal yàlla ndax liggéey bii bu mënee agsi fii nga joti ci jotin bu rafet bii la ak mboolem service yi nga xam ni ñoo seq département bi seq commune de Tivaouane ñi ngi lay seedeel suñu cant ci ñoom ak suñu ngërëm ci làmmiñu xalifa bi di ko def ci le maire de Tivaouane tabarakallahu ak conseil départemental de Tivaouane ak mbooleem ñu aju ci ñoom waaye di la yóbbante nuyoo ak cant ci la ministre de l'intérieur waxoon naa ko keroog keroog bañ ko gisee dafa ne sëriñ bi ñun avant tout doom lañu ci biir kër gi di ay njaboot ndax sunu baay ak seen baay la woon te ku xam euh, Jean Baptiste xam xam juróom xam ni baayam ak Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ak ay sëñ Babacar Mansour yi ñoo nekkandu woon fii mu nekk Mboro ñu seq Tiwaawan gi mu nekk nit ku baax keroog bañ ko gisee dafa ni lépp lu ñu daan def ci bés buñ ko yokkul kenn du ko wàññi te nam ko waxee woon noonu la amee loolu nag ci contrôle wax dëgg yàlla premier ministre di Hadj Ousmane Sonko wax naa ko keroog ak le président xaj Bassir jomaay Faye keroog ba ñu ñëwee Tivaouane la ñu jëkk wax mooy lan ngeen bëgg nan ngeen ko bëggee nu ngeen koy doxalee bala ñuy àgg ci xalifa bi loolu nag boo amee sa ay kilifa te bu leen neexoon ñu ni ñi ngi soog a ñëw xoolaguñu dossiers yi xoolaguñu nu mu demee te it bu boobaa dañu leen koy nangul waaye ba ñu ñëwee lañu jëkk a attaqué mooy lan mooy besoin wu Tivaouane lan mooy besoin wu ziar général lan mooy besoin wu gàmm gi kon ñu ngi leen di yóbbante cant ci ñoom di leen ñaanal yàlla di sant nag senegal yëpp sëriñ bi ni du fàtte mukk di leen fàttali ni incha allahu taala bi ñu ñaan yéen pèlerins yi nga xam ne yéen a ngi jëm si Tiwaawan bu leen fàtte lam leen waxoon <clears throat> Tiwaawan kat fiihal yumlu lil mutayaamin fama taara fiha taa'ibun mutashaa'imu walakinaha daatu tuyurul mayaamini walakinaha saarat madinatu malikin wa ma malikin illa karimu mada ili kuy ñëw na ànd ak yar ak teggin ak bàyyi xel dëkk bi nga jëm si xam ni dëkku bu Seydil xaaj Malick tëdd ak ñu baax ñi tëdd fa guddi gi itam di guddi koo xam ne amuñu ku dul moom muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu mel noonu ku fay ñëw nag am na beneen comportement boo war a amee di ñaan nag commerçant yi di ñaan transporteurs yi nga la waay xam leen ni bés bi seen lépp mën na cee defaru ci kaw yërëm ñi jëm si Tiwaawan yërëm ñi ngeen di jëfraal ci biir Tiwaawan nuy ñaan commerçant yi lépp lu ngeen doon def bu leen ni mukk dañuy occasionné wu ci bés bi wala transporteur yi ngeen ne dañuy occasionné wu ci bés bi ba yokk loo xam ni ëpp na ci nit ku war a jëw Tiwaawan ndax maam Sidi Hadj yi dafa waxoon ni taalibe bu bëgg ñëw ci Malick te amul kàttanu mën a ñëw ci Malick ka fexe ba mu ñëw ci Malick dana am dara danay am daray alaaj Malick nag du wax bu tuuti kon ñuy ñaan yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ñëw ak yéen ñi nga xam ni yéenay commerçant yi ngeen gën a wayafalal pèlerins yi pour ndimbal loolu di ñaanit waa Tiwaawan ay dalal sëriñ bi nee na mu ngi leen di ñaan ngeen ubbi xol yi bala ngeen a ubbi kër yi ubbi leen xol yi xam ni gan ñi bala ñu leen a rey dem bala ngeen leen a rey ñu dem kon yaatal leen seen xol ubbi seen xol ubbi dalal leen dalu xol ba pare nag woyofal seen nekkin ndax tëj bu kër yi yokk sa prix def ko ba mu cher koo xam ne tey da ngaa waroon a ubbi sa kër jox ko lépp ni ko yàqal dalal ci jàmm ci gratuité boo ko defatul boo demee ba di ko fayeeku fayeeku loo xam ne lu normal la kon ñi ngi ñaan képp koo xam ni dëkkee nga Tiwaawan yor kër ñi ngi lay ñaan na nga woyofalal bokk yi nga xam ne ñi ngi ñëw di ñaan yàlla nag nawet bii yàlla ci yàlla def barke di masawu suñu bokk yi nga xam ni bërki démb dañu am lakk-lakk di ñaan yàlla yàlla nekk dawal bu yiw ci ñoom ñaleen leen pertit yàlla na yàlla remplacer leen lu gën ci ñoom di wax ni réew mi yàlla fi yàlla gën a def jàmm bokk yi nañuy wax jàmm yéenante jàmm bëggante te yàlla tax te kenn ku nekk xam ni kenn mënalul sa bopp dara kudul yàlla kenn mënalul sa morom dara kudul yàlla yàlla rek moom boppam mën nit ñi waaye yow nit mën ngaa mënal nit waaye yow sa bopp dañ la koy mënal kon na yàlla yàlla def ci réew mi jàmm ñi ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla xalifa bi yàlla guddal fanam yokk wéram bayiko fi jumaa ji mu ubbi ko ak sago mom ak ay rakam ak njabootu mam Cheikh Hadj mal yeb di ñaan réew mi yi fi nek xalif généraux yeb yal yàlla barkel len magal gi ñu jëm yal ko yàlla indi te yàlla rafetal ko lu raw nam ko daan rafete alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo am mbekté di clôturer réunion bu am solo bi nga xamné tay tey def nañ ko ci Thiès ñu tuddé ko CRD préparatoire. de la 122e édition du Gamou annuel de Tiwawon. Alors comme niñ Fatli, a ay événements yu et en l'occurrence le Gamou de Tiwawon événement qui dajale mbolo C'est évalué à des centaines et des centaines de milliers de pèlerins donc événement Bobo bu yon pour alors euh, vraiment d'abord ren ñu rappeler ñaari élément de contexte nit ñi ko bi moy gamu bi am entre les 13 et 14 septembre 2024 lolu forcément ci nawet lay yàlla moo ko moom président mënul dara ci taw xalifa général mënul dara ci taw mun na ñaan moom mais ndox muy wàcc moom suñu borom moo ko donc loolu d'abord nit ñi nañ ko njëkk a intégré deuxièmement mu am benn facteur conjoncturel état mi ngi yaatal yoon bi nga xam ne moom mooy jóge Thiès di dem Tiwaawoon ñu koy woowee la rn Ageroute ming ci liggéey bi waye mënul pare travaux yi fi ak bobu lolu aussi pour mbok yi intégrer ko ay éléments de contexte la ci organisation gamou. mais bu lolu passé seigne Habib seigne Mustapha, ñu sentions yalla ci dispositif disposition plutôt yo xamné CRD bi jël nako ci walu santé sant yalla bu baax déjà nous am 2000 agents médecins spécialistes généralistes infirmiers et sages-femmes qui ont appelé pèlerins avec une logistique de 65 ambulances pour que ça situation bi ñu mëna secourir pèlerins ci également donc hygiène ak assainissement disposition yep jël nañ ko te bu sobé yalla dinañu def liggéey yoyu te dinañ ko matal bu sobé avant gamubi. bi ñu également insister sur le fait que l'accès à l'eau mbirum ndox lu am solo la aussi déjà disposition yi nga xamné ne eau jël nako renforcé par l'hydraulique et par l'effort mën nañu japp né que ren dinañu def un gamu sans aucune coupure d'eau, avec un accès total des pèlerins à la ressource, en tout cas qui disposition yi ñu jël. di rafetlu sax d'ailleurs que un forage y a un groupe yi a des difficultés service état de defar nañ fonctionnel d'ici au Gamou. c'est la même chose pour la Sénélec vraiment événement yu melni Abib, Seigneur Habib sëñ Moustapha nous euh, avons amee ndox bu am courant bu doy ñaxtu yi du bëri loolu moo ñu mettre euh, en tout cas accès suñu intérêt ci intervention ñaari entité yooyu déjà nous rassuré nañu mais Senelec aussi rassuré nañu dinañu mettre tout le périmètre communal hors de l'estage quatre jours avant le Gamou et hors de l'estage deux jours avant l'événement loolu aussi euh, il convient vraiment de s'en féliciter ci walu sécurité sécurité dafa am solo fu ñuy dajale ay centaines et des centaines de milliers voire un million de pèlerins il faut que état sécurise les. alors donc ci walu police nationale nous nañu bu sobé yalla que dinañu déployer ñetti policiers pour sécuriser l'événement. 3000 policiers la plupart c'est vrai seront en tenue mais dinañ ci am lim bu takku boo xam ce seront des policiers en civil pour pouvoir sécuriser pèlerins yi ci walu say say té lolu ñu may ma ci 30 secondes rek c'est revenu au cours de la réunion té jël nañ ci matuwaay Tivaouane du enregistré ay cas d'agression Et ensuite pèlerins yi aussi nekkuñu ñu jafé orienté wuñu deret li ñu tiire ci rapport précédent yi mooy li ñuy woowee pickpocket xaw ma ni ñu koy woowee ci wolof ngeen wax ma ko après tafukat ak voilà am na ñoo xam ne gàmmu yóbbuwu leen diine yóbbuwu leen dem di calculer ni ñuy mun a tafoo nit ñi di jël say téléphone di jël say kalpe di jël say yeneen alal loolu j'ai dit que c'est inacceptable te du ñu ci toog croiser les bras nit ñoo xam ne dañu ñëw pour lor pèlerin yi loolu moo tax ci biir dispositif bi demandé na responsable yi ñu réarticuler ko wàññi lim bi ci wàllu policier en tenue yokk lim bi ci wàllu policier en civil dinañ leen def ci garage fi nit ñi bi wàccee nañ leen def ci lieu d'affluence yépp même bu ñu mënul carrément annihiler phénomène bi bu soobee yàlla ren dinañ ko wàññi yéen ak policier la bu soobee yàlla yéen tapukat yi pickpocket yi bu soobee yàlla <laughs> alors bu loolu passé ñoo ngi vraiment rafetlu aussi décision engagement gendarmerie nationale gendarmerie nationale moo ñu yoreel tali yi te voies yu fay dafay vert vers Tivaouane seront tenus par la gendarmerie nationale ba y akay effectif effectifs yu doy akay auto yu doy akay moto yu doy bu soobee yàlla loolu dafa am solo à l'intérieur de Tivaouane on n'a pas de grands problèmes événement yu melni accident yi moy les grands problèmes té accident yi aussi nañu waxanté deug donc, ñun en tant que julit lu xew suñu borom lañ koy euh, attribuer ndogal yalla la mais nous nous sommes des experts ñun dañuy analyser nous mhm. suñu liggéey plus de 80 wala des accidents mortels que nous constatons le facteur humain est présent mhm. donc encore une fois damay lancer appel sëñ Habib ki sa ginnaaw di ñaan suñu mbokk usager de la route muy conducteur muy chauffeur même passager am ngeen wàll ci suñu xex bi ñu pour wàññi accident yi je vous appelle à la prudence et je vous appelle à la responsabilité sori wul yenn daw yi yenn xër ko ça c'est du côté des transporteurs té Bluna, c'est une participation ci CRD bi j'avais tenu à ce qu'ils prennent part c'est des acteurs importants ngir yalla les len ñu sensibilisation ci garde yi ngeen ne chauffeurs yi nañu rouler conformément aux règles du code de la circulation dara jaru ko Seigneur y a une course supplémentaire, voilà deux courses supplémentaires. Nous matal 100 000 francs. Nous avons un risque. Des accidents, des feux, des bacan d'urot, voilà, des fouki bacan d'urot. Djarouko. Nit qui m'ont bout de fin d'ank, c'est comme des yaksi. Donc, encore une fois, nous, État, nous avons fait le plus à travers la gendarmerie nationale on veillera à faire appliquer les dispositions du code de la route. Mais comme on ne peut pas être à tous les kilomètres, il faut que nous lancer un appel aux chauffeurs et aux conducteurs. Mm-hmm. du leneen du dul ñaan rek ñu am taxawaay boo xam ne pèlerin yëpp dinañu dem ci jàmm yegg Tiwaawoon gàmmu fa wat fa ci jàmm yegg sen kër continuer sen liggéey. Vraiment, je voulais insister sur cet appel en ce qui concerne vraiment le problème de l'eau. L'ICIDES euh, dit vraiment remercier Sonatel dit remercier Yenen entité yep yu engagé wu dit ñaan également que engagement infidèle, nous fi jël matal dans les délais qui ont été donnés ici et nous y veillerons personnellement. di sant presse bi aussi hamna dingen di relayer déjà Serigne euh, euh, bi li mu wax sëñ Habib ak euh, man le point le plus important bi moi, lancer aux transporteurs un appel à la conduite responsable et à la conduite prudente pour éviter des accidents évitables